asalaamaaleykum ami internet yi safo SBT Média ginnaaw bi ñu leen nuyoo ba noppi ñu ngi leen di jaajëfal di leen di jox seen wàccuwaay amaat kontaan te jàkkaarloo waat ak yéen si suñu jotaayu émission wala suñu jotaayu programme comme ni ñu koy defee saa ne rek tey nag ñu ngi fi nga xamante ne moom moo di ah, marché bu Zing bu diwaanu Pikine seet si rek ñi nga xamante ne ñoom ñooy defar ay dàll ñu gën leen xam ci cordonnier tey nag euh, waajtaayu tabaski bi daanaka des na lu tuuti rek euh, moo tax ñëw ñu xool si leen def déplacement ak dérangement fas yéene waxtaan ak ñoom rawatina ñi nga xamante ne ñoom ñooy uude yi jaaxaaloog suñu papa ji di ko bàyyi rek nuy wante ak ami internet yi gannaaw bi ñu ko nuyoo ba noppi la laaj tur bi ak sant bi bàyyi la nga nuy wante ak internet yi nga xamante ne ñi safa sbt média point com ñu may wooye Mbaye Faye Mbaye Faye laa tudd asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di nuyu jullit yeeg mbokk jullit yeeg ñëpp ci àdduna maa ngi leen di nuyu nag boo gisee ñun maanaam bi mbas mi commencé xawoon na doy waar lool fan yi moom ba ñu ibbee frontières yeeg yëpp affaire yaa ngi commencé doxaat nànk-nànk waaw lenn moom li li li ñu kii mooy problème mu bagage bu seer waaw comme matière première bi ni nga koy amee day xaw a jafe daal même loolu liggéey buñ la ko jaayee tamit même boo ci liggéeyee boo boo góorgóorluwul trop wala nga gaaw trop boo moytuwul di nga ci am problème waaw loolu loolu moom mooy suñu problème moom alhamdulilah rabil alamin affaire yi moom moom tubaarikàlla moom ñun ñun maanaam liggéeyuñu ay toile ñun ay matière cuir lañuy liggéey waaw voilà ndax kii kilo bi ñu ngi koy jënd ay cinq mille six mille un kilo waaw am na ba huit mille am na ba dix mille waaw nag bu ñu xooloon ni ñu ko mën a gën a oyofale ba ñu ko muy yombati ñun moom di ñu gën di ñu leen gën a sant daal waaw leen na ngi fi nag biñ fi nekkee fii ba léegi waa chambre de métier wala li jëm ci nguur gi mosuñu tee gis kenn fii ti marché bi presque def nañ fi vingt ans fii mun naa la ne fii ñëpp ñu nekk ci marché bi fii lañ ma fekk waa ADEPMI ñoo fi mos a ñëw te dañ fee jaar jàll waaw waaw ñun ñun ñun lii suñu problème li moom artisanal bi li jëm ti moom mbirum dàll yi nii du benn li jëm ti chambre de métier li respecté fii te boo xoolee actuellement nii nii nii nii nii bu ñu doon gis à part commerçant yi nii ah wuude yee fi ëpp même téer yi sax wuude yee leen fi ëpp fii jamono jii nii est-ce que mun nañoo xam tey ñi nga xamante ne ñoom ñooy uude yi defar fii daal nan la ñuy waajalee li nga xamante moom moo di événement bi. comme nii nga ñu fekk rek ñoo ngi ti comme liggéey bi nii nga ñu fekk rek lañ koy waajale toujours nag nii lañ koy waajale nag yàlla mi ngi def ñu ngi ti suturlu ci sant yàlla daal ndax am na fi fi nekk nit a ngi fiy jóge ay Gambie ay Casamance ay Kolda ay fi nekk ngi nit a ngi jóge foofu di ñëw di jënd si suñuy matériel waaw. est xam tey matériels yi nga xamante ni yéen a koy defaree fan lay jógee. liñ fii defaree lenn li bu dee cuir bi nii Europe lay jóge itali wala Espagne bu dee bu dee li jëm ci maanaam matière première kawsu walla crêpe wala kol yooyu mi ngi jóge Chine waaw waaw yan xeetu yan xeetu dàll ngeen defar yéen uude yi nga xam te yéen a moom dàll yëpp la ñuy liggéey daal dàll yëpp fii wuude yi fi nekk même loo dàll boo indi ah boo ko boo ko boo ko envoyé ci net bi wala lenn boo ñëwee di nga fekk bu mel noonu ñu liggéeyal la gën a dox dàllu góor yi wala dàllu jigéen. moom ñëpp a ngi moom di jot seen wërsëg moom naajement moom bu dee moom bu dee wuude bi moom moom moom lenn li mooy problème mu matière première. moom événement yi nii moom dina dox bu affaire yi weesoo boobu da day commencé raam nànk-nànk. est-ce que mun nañoo xam jamono bi nga xamante ne dañoo nekk ci jàngoro ya coronavirus bi di mbas mi ak yeneen tabaski yan diffé ban différence la am ak tabaski yi nga xamante ne weesu. sant yàlla doon na doon gën a dox comme lii moom jarul sax ñu di ko wax li xam ne dafa daj la waaw li daj la ñun jarul jarul sax ñu euh, ñëpp xam nañ ni mu demee waaw waaw doon na doon gën a neex nag waaw. mun nañoo jàpp na tabaski bi daal waajtaay bi des na daal comme par rapport ak feebar. moom moom kooku boo ko ñëpp ko xam àdduna wërngal këpp a ko xam waaw même bu dul wuude yi sax ñëpp a ko xam ñëpp xam loolu. waaw ndax lii moom xanaa ñaan suñu boroom rek yàlla di dindil ñu ko fi saafara ko daal moom ñëpp ñëpp xam lii moom ne moom métti na ni mu doon demee demeetul woon noonu demeetul noonu. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax papa. tur beeg sant bi Mor Gueye la Mor Gueye. Mhm. événement bi ñu ngi koy waaj ñu ngi koy waaj ndànk-ndànk rek affaire bi moom lépp ñu ko kii rek mais ñu ngi kërti kërti ndànk-ndànk rek affaire bi moom metti na moom. mais alhamdulilah. tey euh, moo dëggee mun mën nañoo xam yéen nan ngeen dundee li nga xamante ne moom moo di euh, événement yi nga xamante ne moom fi weesu woon ak euh, événement bi nga xamante ne tey moom la nekk. non événement yi nag moom yi weesu nag moom moo daax fu moo daax moo tane waaw période bi moom dañ ci nekk di taqale nii rek mais weesu moom moo gën a tane avance corona bi nii moom dafa lim yàq dafa bari quoi moom baare na suñu liggéey yàq na yàq na lu bari bu njëkk bi daal moo tane woon. fuuf. est na ñoo xam moo Gueye yan façon daal lay defar yan xeetu daal lay defar ak lan moo tey nekk tendance si tabaski bi nga xamante ne moom la ñu nekk. Mm-hmm. man moom maa ngi defar ay daal kiwir tuwaale gi yëpp laay defar capp sabon marakis yëpp laay defar moom bàyyiwuma dara moom daal yëpp laay dóor. Mm-hmm. na nañoo xam lan mooy prix bi prix bi nga xamante ne moom la yem tey. prix bi ça n'est pas ay sabon am na yoo xam ne ñu ngi koy defaree 9000 8000 daal yi tamit noonu am na yoo xam ne ay ça ne va prix yi daal bokkuñu quoi nekkul même chose quoi euh, ban la appel bi nga xamante ne moom nga doon la bu laajoon tey appel boo war a lancé tey ban lay doon ban appel ngay lancé jamono bi nga xamante moom la nekk ci euh, jàngoro kuy di coronavirus bi ban appel ngay lancé. ban appel ngay lancé askan gi boo nekkoon tey boo leen di ñaax si li nga xamante ne moom moo di jàngoro feebar bi ñu fi nekk waaw waaw. mooy exemple topp tegtal yi ñu joxe rek topp tegtal yi ñun moom ñu ngi si fekk ñëwee masque yeeg yooyu noonu tegtal boobu daal ñëpp a koy joxe tamit hmm. yaa ngi nekk fi nga xamante ne moom moo di Mbaaru Oudé ban appel ngay lancé autorité yi nga xamante ne ñu ngi fi tey rawatina ñu nekk si de métier. comme exemple. chambre yi waa nekk si réew mi ban appel nga leen di lancé parce que am na ñoo xamante ne dañuy faral di wax ne euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk si chambre de métier yi jàppale wuñ leen li ñu leen war a jàppalee tey boo amul bu nekkoon loolu noonu dëggal nga ko tey ban appel lay doon. loolu moom dëgg la ñu nekk si métier yi moom jàppale ñu en place entreprise yi quoi ndax fii gis nga bu tawee fii day fees dell place yi gis nga ko fii bu tawee day fees dellu jàppalewuñu daal exemple ñu nekk ci place yi mairie beeg yëpp ci am gars yi dañuy ñëw fi di xool mais xam na ni mu demee situation bi mais lijjanti wuñ ko quoi loolu moom lu am la. lan nga leen di wax lan nga leen di wax tey. man li ñu leen wax mooy exemple ñu jàppale ñu rek xool nañ ñun ay citoyen lañ ci doomi réew mi ci lañ bokk mbaar mi moom wax dëgg yàlla mënut a mënut a ñàkk ci réew mi. waaw yeneen liggéey yaa ngi fi mais métier bi mënoo ko mën a pare di ko bàyyi loolu la rek mën nañu mën a gestu nag bàyyi ñu xel bu baax. Mhm. bu mag waaw. tey ñu fekk la fi nga xamante ne moom moo di mbaaru uude ngay defar li nga xamante ne moom moo di daal est-ce que mën nga ñëw ñëwaatal fi ngeen xamante ne moom ngeen toll jamono ji ci waajtaayu tabaski bi ci defar daal. waaw waaw mën nañ la cee tegal lu xaw a yaatu ndaxte franchement parle ñu ngi góorgóorlu en plus liggéey bi daa xaw na difficile parce que day am ay bagages yu xaw a nag waaw manquant bi day bari trop da ciy feeñ parce que couvre-feu beeg affaire yi moo waral affaire yu bari wàccul quoi mais nag ñu ngi santaat daal ñu ngi santaat parce que ñu ngi liggéey wax dëgg yàlla suñu borom a ngi ciy def sutura daal pour l'instant nii quoi. est-ce que xam yan bagage moo manqué. waaw bien vrai que li manqué bari na ay talon am nañ problème mu talon bien vrai que am nañ problème mu crêpe bu baax bien vrai que am nañ matière toile yoo xam ne comme yu mel ne yii couleur la woon ay rose ay bleu ay mauve. mais yooyu yëpp yàlla dogal na amatul quoi pour l'instant nii quoi manquant la tamit day feeñ ci job bi parce que client yi dañ koo bëgg te amatuñ ko. est-ce que mën nañoo xam ki nga xamante ne moom mooy defar fii daal tey yan xeet daal ngay defar yu góor ak yu jigéen wala. waaw bien vrai que ñun petit volant la ñuy def dañuy def góor def jigéen en plus dañuy def yu xale ak yu mag tamit en plus parce que ins bi pour l'instant nii ay carax jigéen laay defar mais. après fin bi laay commencé góor ñi quoi ñi nga xam ne ni dañ koy sol mais ñi nga xam dañuy jaay pour l'instant ñoom la ñuy liggéeyal daal jàpp ne ñi nga xamante ne ñooy seetaan SBT Média tey mun nañoo jàpp ne yéen par commande ngay defar yow tey waaw bien vrai que damay def par commande parce que li ëpp moom wax dëgg yàlla man commande laa ëpp lu may liggéey franchement ko jaay bariwul daal li ci ëpp parce que ay commande nga ñëw décortiquer wan ñu tuuti rek ci ni nga xamante moom ngay defaree daal jigéen waaw bi ça veut dire bu première bu ñu defaree woro bi nii ba pare lii mooy talon bi comprendre nga léegi day am première première bi moo nekk nii quoi day am première day am première quoi première bi moo nekk nii en boo paree da nga koy monter a ah, tegal ma noonu moom waaw en plus première bi moo nekk nii léegi ça dir dire que da koy def nii quoi alma alma danga koy def nii quoi benn instant bi boo defee nii xaaral ma expliqué la léegi premier lii mooy première bi quoi ko defee nii da nga koy fett boo defee nii en plus après da nga koy monter boo monter nii après boo monter nii ba pare nga doo a jël forme bi mooy former dàll bi quoi waaw mooy former dàll bi bu former dàll bi nii bu formé dàll bi nii ba pare formé dàll bi nii ba pare formé na nii dàll bi ba pare comprendre nga léegi en plus boo formé nii dàll bi ba pare talon ba non du boobu talon voilà waaw bien vrai que talon bi mooy def nii quoi waaw mooy tegu nii après muy carax bu waaw caraxu sandal bu rafet daal boo xam ne franchement parlé ko tabaski bi moom franchement parlé xale yu jigéen bëgg nañ ko bëgg nañ ko trop bëgg nañ ko trop quoi. mën nañoo jàpp ne clients yi nga xamante ne ñu ngi jënd si daal yi ñoom ñu ngi ñëw bu baax a baax rawatina xale yu jigéen. waaw vrai que ñu ngi ñëw parce que léeg-léeg da xool atelier bi da ngay xool doo fi gis daal parce que franchement parlé par rapport ak tabaski fi jaaroon parce que tabaski gune jaar na fi mais bii nag wax dëgg yàlla ñu ngi ci sa gis nañu euh, satisfaire nañ ci suñu bopp bu baax a baax a baax a am na ñenn ñoo xamante ne dañuy faral di yuuxu ne jamono mbas lañ nekk muy coronavirus bi yow nga ne yaa ngi yëg sa bopp bu baax a baax est-ce que loolu du exception par rapport ak li ah, dafa am nu mu baaxoo parce que nit ki boo calculer ne démb comme fi ñu génn nii moment bi ñu génn nii tabaski comme korite gi génn boo xoolee ak moment bi ñu toll par rapport bokkul quoi parce que nit ki tamit xam nga ça veut dire que boo calculer a nga daan am mënatoo ko am parce que bu dul corona bu dul dara sax mënatoo ko am parce que adduna moo dafa évoluer parce que bëgg-bëgg yi bari askan wi gën nañoo bari te ñëpp ñoo bokk li ñu bëgg kon mënut a yomb daal. kon mun nañoo jàpp ne yaa ngi duy sa gafaka ba fees. wala waaw a baax di ci sant suñu borom bu ne. waaw ñun daal ñu ngi ci gis bopp parce que liñ waroon liñ war ci suñu kër daal ñu ngi ci moom parce que bien vrai que moo tax nit di liggéey daal xam naa pour man loolu la quoi nit li mu di liggéey rek pour këram la daal te satisfaire nañ ko bu baax a baax amul dara lu fa manqué franchement parler wuñ. kon amee internet yéen a ko déggandoo yéen waa SBT Média ñu koy suivre rek da ngeen di suñ collecte de notification daal di dugg si YouTube am lépp loo xamante moom mooy information comme ni koy defee rek saa su ne jotaayu programme noonu la koy defee mu ngi noonu yaa ñu ngi leen di bu baax a baax.